wa Cheikhu Ahmadu Tijaan maam ya wër na ca réew wa Cheikhu Ahmadu Tijaan maam ya wër na na ca réew شيخي يلا كومي مي مام يا والشيخ أحمد التيجان ما يا كل وجودي فشيخي يلا كومي مي مام يا والشيخ ba mook dëkkandoom yaa wa Seexu Tijaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñi ñuy seetaan yëpp di leen ziyaara ah dañoo nekk rek ci 34e journée Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ñu koy amal fii ci institut islamique ci grande mosquée de Dakar journée bi nag tàmbali démb le 6 décembre 2014 tey nekk deuxième journée bi nga xamante ni journée bu am solo la ci biir journée yi démb yàlla dogal na am na ouverture bi ci am ci président su euh, euh, euh, roi du Maroc ak président président su président de la République du Sénégal ci teewaayu Mawla Cheikh Abdoul Aziz Al Amin ak njabootu Seydi Hadji Malick yëpp mu nekkoon ouverture bi mu am solo lool. ñu organiser ko fii ci institut islamique sëriñ bi ñëw joxe message bi nga xamante ni moom la xalif bi Sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si almaktoom yàlla na yàlla guddal fanam wax na ko ñëw jottali mbooloo mi nga xamante ne tey ñoo ñëw ci bésu na Cheikh bi mu am réussite totale démb mu am ci benn cachet spécial ndax euh, buuru Maroc bi avion spécial la de la la la ba mu fees ak ñu ko représenté fii ci institut islamique président di Macky Sall tamit def noonu waa Tivaouane tamit def noonu waa Medina Gounass waa Ndiassane waa Niassène waa kër Maam Alpha Seck ñoom ñëpp ñëw nañu ak waa kër Cheikh Al Hadji Omar pour teewee tamit bés boobu yàlla dogal euh, sëriñ bi joxe kaddu yi nga xamante ne xalif bi wax na ko mu wax ko njaboot gi tey nag mu nekk deuxième journée bi mu nekk euh, journée bu am solo ndax waxtaan bi tey lay tàmbali mu am ñaari conférence yu mag yi nga xamante ne ay borom xam ñoo koy defee kii mi ngi bàyyeekoo ca Maroc kii bàyyeekoo fii ci Sénégal te ki koy modéré muy Mawla Cheikh Abdoul Aziz Al Amin jeunesse bi nag am ca part de responsabilité bu bëri ndax ku tudd Seydina Cheikh ak naka turandoom bi Serigne Cheikh Tidiane Sy Al ñaanaloon na ko sama turandoo maa ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla fayee ndawi jamono tey ndawi jamono yooyu ñoom ñoo taxaw fii tey ci rue 25 boulevard Général de pour def la grande marche pour répondre à l'appel de Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Al Chérif Cheikh Ahmed Tidiane tey jii dakaar yëpp daanaka oto yëpp chargé nañu ñu ngi ci yoon bi di ñëw nànk-nànk amul dakaar foo toog rek lu dul ay kaari kaar jóge nañ fa pour daje fii ci rue 25 ci euh, organisation mouvement jeunesse Tidiane. Euh, Malikit bu Cap nga xamante ne tout le Dakar le mouvement boobu euh, euh, lëmbe sëriñ bi nag waxoon leen ni ay ndaw cheikh ngeen te journée cheikh yi kenn ëpp leen ci wàll kon na ngeen am benn cachet spécial bi ngeen ciy def kon ci ndigalu kilifa boobu ak teewaayu ak ak ak ak ak. ak Cheikh Ahmed Tidiane Chérif bi ñu ko tuddee moo tax tey mouvement bi yëpp dajaloo nañ fi fii ci allée du centenaire pour wuyu ji appel boobu loolu daal moom moo nekk euh, jataay bi nga xamante ni moom la ñuy xaar nii oto yooyu ngi wàcc di wàcc di wàcc sànq ba léegi ndaw ñi vraiment ñu leen di jëfal ci woote gi nga xamante ni Cheikh Abdoul Aziz Al Amin wax na ko ci turu xalifa bi loolu daal laa amoon comme information yi ñu leen si jox maa ngi tudd Abdourahmane Sarr Paye nekk le responsable mouvement jeunesse Tidiane bu Malikit bu Cap Vert yàlla da leen di tàntal idlaalum fi dilli arshillaahi yowmal qiyaamati fa yàllallaahi nee te bu booba ñu ngay jaar ci laa malaaka yi jéggi siraat te siraat gën a sew ci nkuuru fas gën a yëngu jaan ju ñu gaañ te ku ci daanu ci jahannama ngay daanu cheikh nee na mbàkk mbaggi malaayika yi nee ca la tijaan yi jaar jàlle jàll jawaazum kawaayilal malaayiki ala siraati minnatan lil maliki cheikh ne bu ëllëgee yéen ak sama maam Muhammad yéenay dëkkandoo ca ëlliina sukkunaawu moo fi daari ëlliina mu jaawiina xayral mursalina ne per bi ku koy sikkar ku la may jabar dem aljanna koo may jabar mu dem aljanna say soxna dem aljanna sa ndey ak sa baay nga yóbbaale leen say doom yu góor ak say doom nga yóbbaale leen say sët yi say doom yu góor jur nga yóbbaale leen wa yadxulul jannata xaawil wirdi wa walidin wa zawjatin kal wuldi kadalika al ashaar wa daraari wastasniyan xafadatan yaa qaari damaanatun min rasulin mayam gamotin biriya bi neex na alhamdulilah lañ wax ñoo ngi sant suñu borom di julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad di kontaan ci bis bi ndax bis bi dafa màgg dafa rëy dafa nekk lu rëy ci ñun lu neex ci ñun lu nga xam ne buñ sañoon sax day ëpp semaine ay weer lay doon ci ñun ndax bis bi daal kontaan gi ñu ci am ñun taalibe Cheikh yi faa ko takk weesu na ko ñun taalibe Cheikh yi bi ñu bis bi ñu am kontaan gi ñu am ci bis bii foo ko takk weesu na ko. ñu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikhna Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu di sant sëñ Babacar ñu ngi dox ci lu ñu sawar ndax journée bi doomu aadama amul journée bu ëpp bii journée Cheikhna Ahmad Tidiane Chérif ñun ñu jóge waaw wakaam ñun ñu ngay gis nii ñëpp wakaam la ñu jóge wakaam moo nekkoon wanagu Alaaji Malick kon bu ñu fa jógee ñëw ci fii bu ñu laajee dañuy sawar a wax kon yal na ñu yàlla may ñu yegg ci marche bi nii mu ngi ñuy fàttali ñu ngi mel ni bu ñuy seetaan ci télé bi ndax demaguñu màkk nag waaye na nañu yàlla yóbbu waaye mu ngi mel ni ñu ngi dox jëm waaw jërëjëf yal nañu yàlla may fekk ka ay déwén yi déwén yi déwén yi déwén ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mbokk yi ñu ngi sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ne bii nag moo ñu xiirtal ci yoonu siraatal mustaqima may santaat yàlla nag ñun ñu ngi bàyyikoo koo wakaam man maa ngi tudd Awa Cheikh Ndiaye ànd ku ñuy wax aji Abi Saw aji Wali Ndiaye aji Maari Dia ñi ci des dañoo am ngànt waaye nag ñu ngi sant yàlla bu baax bàyyi koo ci daayare bu ñuy wax muslimiina wal muslihaat wal muslisaat di sant yàlla nag di julli ci Seydina Muhammad tey ñaan jataay bi yàlla nañ ko àndandoo nii ca raw du yonent ba sallallahu alayhi ndax ñun lu dul yonent bi ñoruñu yàlla moo ñu yor ak yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi ak yon ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi sallam ak Cheikh na Ahmad Tidiane radiyallahu an ñu ngi ñaan yàlla ànd bi yàlla nañ ko àndandoo ca suufi Kaaba ga ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë jëf. ah ñu leen di ñu ngi leen di leen gërëm di leen sant ndaxte organisation bi moom. rafet na macha allah lépp lépp a daal lépp baax na amuñu lu ñuy wax ñun ñëpp kontaan nañ ak yéer ngeen ñu bu baax jërëjëf waay. bay boobu dawal mooy yu fa mun taa Pawla Cheikh bay mooy yu yaa fa mun taa la bupp tawal mooy woor yaa doo bihi in aratum seen borom ak liggéey yaa mooy leen ni seex su ngeen dëggoom ca góor yàlla yu ci seex bu ngeen bëgg yow li mooy leen ci seex bu ngeen ca kaw mooy leen ci seex bu ngeen bëgg gaañi ci seex bëggee mooy leen ci cheikh bu ngeen bëggee seen borom ak liggéey yaa mooy leen ci cheikh bu ngeen bëggee seen borom ak liggéey yaa mooy leen ci cheikh bu ngeen bëggee seen borom ak liggéey yaa nabi muhammad xéwal gu sax ak musal ذاك آل وصحب ويويك أمرا وجق قلبي من خيال قد سرى قد سرى قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرى شفا طيف الكرى من شفى شفي وكسده هو أولا خير دمعي انكسال هجرا هذا قلبي لخلل قسرا قسرا وصفاني قد جفا طيف الكرى ta